الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخديمه ذوي الردوان والتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نونغي لين دي نويو تدي لين زيارة نونغي لين دي ñaanal yermande sun borom ak njëggalam barkeb seigne touba ñu ngi sof suñuy kàddu fii sëriñ Basiiru Bàyyee te moo doon rekk laayante biir ak fàttalante ci bis bu màgg bi nga xamante ne ni ci lañ jëm di bis boo xamante ni amut bis buñ koy tëkkaleel ab dayoom itam mënuñu koo xam ndax ki mu dal ci kawam la moo toll noonu sëriñ bi nag li ci sëriñ ba Basiiru wax léegi rek murit yépp boo leen boole woon bañ dànk leen bañ doon benn birig nga teg leen ci balance jël sëñ Tuubaa teg ci balance sëñ bi wat nu kenn ci ñun wecciwu ko kenn kenn ci ñun wecciwu ko ndax koo fi gis ci ñun ak cër boo ko mën a jox loo mën a jort ni moom la lam doon sëñ bee tax mu doon ko te sëñ bi moom kenn taxut mu doon li mu doon doon lan li mu doon ba pare door taxawal yoon moo tax mu wax ni xustu xayaatan laa turaari xayri mujisatan baanat us usni xayri dund naa dund goo xamante ni ni du ngeen ci ko gis ci kaneen ba ngeen tàmbalee dégg ak léegi dégg gu leen fi ñu ni diw sàngam ca dëkk sàngam mook sëñ Tuubaa bokkoon lu ñuy dunde wala sëñ bi diw lay nirul amut ku muy niru ci gaay yàlla yi téeméeri junni yenent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeent yi suñ boroom yabal seenu nit ku mel ni Sëñ Tuubaa nekku ca seenu nit ku mel ni Sëñ Tuubaa newu ca kook yi nag bu nu ko yàlla wërsëgalee yërmaande suñ boroom la ju tàbbal ci suñ biir waaye leenu ci dal mooy bëgg nañ ko waaye xamunu ko loolu moom dal nañu ci moom ba tax na war ma ji war suñ diggante ak moom sax joxunu ko loolu feeñ na ci ñun dunduñu ko itam mooy jéemalu ko roy ci dara dan koo tiim rek di ko yéem waaye ko képp ku ko ci roy ab bis benn bis képp nga xëy yow fas yéene roy Sëñ Tuubaa ñi nga doon àndal ñëpp danañ xam ni soppiku nga yow ci sa bopp da yëg ni soppiku nga moom nag guddi goog yi mu fanaansee ci dëkk bii nga xamante ni moom la gënoon a bëgg ci pàkki suuf yi foo ko mës a dégg gan la fa jàppe woon boppam waaye moom jàpp na ni Touba la dëkk tey Touba la dëkk wacc yi maskan yi tuubaa abad suñ borom maa ngi lay ñaan nga defal Touba muy samay dëkkuwaay ba faw buy tudd Touba sax da koy askanale ci boppam yasir rujuu'i li Touba ya na nga jàpp ndal sama dellu ci sama dëkk ba muy Touba lu baax lu ne ñaan na ko fi rabbi stajib wal tukammil maa nawaytu la daa Touba lati bi ko tub naa fi ko bunyaana ñaan suñu borom mu mottali li mu yéene ci dëkk bi kon nun bu suñ borom dogalee nuy dëkkandooy sëñ bi di jóge ci suuf si di waaxu di romb barabam ba di ko tiim kenn ku nekk war naa nattaat boppam xoolaat boppam ba xam ndax moom dëgg-dëgg nag mat nga dëkkandoo ci kii walla de mooy loo daw wuti yàlla doyut cheikh Mouhamadul Moustapha moom mii nag nga xamante ni yàlla dogal na moo mag ci ay doomam yaroo ci keppaaruk sëriñ bi ba am ñeent fukki at ñi sëñ Tuubaa jaboote moom ku ko ci gën a xam sëñ bi amul yàlla dogal itam mu jëkk koo wuutu gannaawam kon ni mu doon def noonu la bi mu indee sëriñ bi te ni ko sëñ Basiiru waxee doon lu jafe nag xam nga buñ ne sëñ Moussa indi sëñ Tuubaa rek loolu daay yomb dégg nga fi kenn ku ci nekk wala ne la sama baay wàcc na dama ko yóbbu Tuubaa waaye bokkut ak booba sëriñ bi def na fukki at ak juróom njaareem ñaari yoon la ko mës a génn benn bi xuru Mbàkke la ñëw bi ci des ndakaaru la dem te gouverneur général moo ko woo te kenn mënu koo déplacer te booba tubaab yi tëjuñu ko dañ ko bàyyi ci biir njaareem mu nekk ci biir këram ga moom ci boppam xam na ni ci loxo la ne njaboot gi ko séq xam na ni ci loxo la ne bëgg nañ ko fee indi tuubaa boo xam ñoom njaboot gi ñëpp nangu nañoo signé garantie ni day dem yandu bu ngoonee mu dikkaat tubaab yi lànk kon doonut woon lu yomb ba ci bi mu ñëwee xuru Mbàkke nga xam ni maam Cheikh Anta moo moo moo garanti ni bu 17 heures dana ko delloo siwaat nga xam ni wax nañu bi toog sànni di waaj jot moom daa topp ci gannaaw sëñ bi saa yu sëñ bi gestoo rek seen Cheikh topp ci gannaaw mujj gi sëñ bi di ko ree ndax xam na ni Cheikh mii xelam mi ngi jeex jaaxa ndax sëñ bi moom bu ko neexoon ni tëppit wuti Touba te kenn mënu koo kar kenn mënu koo dëpp te dëppam jotut waaye la mu doon wax rek naan sàmm ko ak sàmm ñayeyam moom da ngay topp ci gannaawam rek waaye doo mën dara ci moom ci guddi ñaar fukki fan ci tamxarit di fukki fan ak juróom-ñeent ya la ñëw ci barab bii nga xamante ne nii fi lañ koy ziyaare te tubaab yooyu yi ko fi téye seen yitte ak seen bëgg-bëgg ak seen pas-pas doonut woon mu ñëw Tuuba waaye sëñ bi xamoon na loola ndimmal li ko sun borom defal ak fal gi ko sun borom fal ak ànd gi sun borom ànd ak moom moo taxoon mu ne akramani bi bila xuruji jismi min watani li nafi ahlil muduni suñ borom moo ma terale sama sama yaram des ci sama biirum réew dee ko yóbbu fa neen ngir jariñ ma neen réew ndax wóor na ko ni moom saa nafañ bi la daral la kiiraay la kaaraange la ju rëy a donte noonu xamuñu ko kiiraay la kaaraange la làqutuwaay la ab rawatukaay la bu rëy guddi googu yi nag la sëñ Moussa waxoon ni juboo na ak boroomam ci képp ku fi fanaan ca nam bëgg ko ko fi fanaane suñ boroom dana la jéggal say bàkkaar ba nga mel ni liir buy door a judd guddi goog yi la sëñ Moussa waxoon ne yitte ju jar bañ a fanaan si Touba guddi na mu xaram suñ boroom sàkku ko képp ku ñëwut màggal sa bakkan la téye waaye du yitte ju jar bañ a fanaan si Touba moom kay da ngay gam-gamle la ngay def ak ñëw la ngay def gënal la ñëw nga toog waaye nee na yitte ju jar bañ a fanaan si Touba guddik asirina muharram moom suñu borom sakku ko lu tax mooy day guddik far bàkkaar te ëllëg lu naqari nit ci sa bopp bul jàmbat kenn jàmbatal bàkkaar bàkkaara la ko teg bu ëllëgee rek lu la dal bàkkaara la ko teg te bàkkaar du wàlle bàkkaar du wàlle bàkkaar bi nga def lañ lay duuma waaye bàkkaar bu kaneen def sa yoon nekku ci kon ëllëg ku am loola naqarit sa bopp yaa ko teg sa bopp boo gisee fuñ koy fuñ koy saafara nag fuñ koy jéggle jar na sor dalli weñ di dox ba dàll ya xar nga def tànku nen ba keroog ngay àgg ca barab ba moo taxoon mu waxoon ni ku yor yaari mbubb na la jaral jaay menn ma te ñëw soxlawut xaalis bi roo yi la soxla moo taxoon mu wax ni li ngeen di tontoo saxaar gi mook li ngeen ma jox ma def ci sa poos ñooyam ci man roo yi la bëgguñu fanaan si mooy paas yi ñi paas di ñëw mook addee ji ñu ko jox mu def ko ci poosam ñooyam ci ñoom ñooyam benn wàccuwaay demoon ba wax ni sax ni su fekkente ni dangaa am ngànt ba mënoo ñëw xoolal yoon wa jëm Tuubaa nga aw ca fu la fajar fekk nga wàññi ko suñ borom sàkk na malaaka yoo xamante ni nii dañuy gàttandu ñi bëgg a ñëw te mënuñoo ñëw fu fajar jote ñu jox leen seen wàll ñu wàññi ko loolu nag boo koy wax nit day jeexi jaaxa ba xam mën naa nekk walla mënta ne waaye bu boobaa dangay xam ni kii gëmut yàlla bàyyiwut yàlla xel lu tax tabaarakal lasi bi yadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in xadir ki mu wax ni moo koy def kooku tëliwut dara te yàlla la wax ni moo koy def suñ borom mooy jéggale bàkkaar suñ borom mooy joxe aw yiw suñ borom mooy fay te nee na tëlewuma dara te sëñ dara jomb ko kon suñ doxee jëm ca war na noo xam bu baax a baax bis biñ jëm dayo bi mu am ngir wàccaay wi ñuy wàcc ngir jëm ci ak buñ àggee ca bis ba nan lañ koy jariñoo bokk yi weñ dee na ci soow waaye xaru reyu ko de bëgg soow ko rey weñ dee na ci soow waaye xaru reyu ko bëgg soow ko rey mooy bëgg soow te xamut nu muy jariñoo ca soow ma moo ko gaañ danga dégg sëñ mu Ka ni sëñ Touba di maanam dex muy misaal sëñ bi di ko tëkkale akuk dex ku soobu ne mes wu génnee xam boroomam waaye la ci am solo ci wax ji rek dañu ku soobum ndox na xamum ndox ndox bi yeewul ndox lewet na te we xatt ci biiram ndox booy sangoo ko naan neex na lool waaye boo ci labee nga xam ni ndox baaxul te lab ñaari ñàkk xam ndox a tax ngay lab moo tax mu ni dox bi yeewul ndox lawet na tewe xat ci biiram moo tax nu war a xam yan matuwaay lañ war a jël ba àgg ci bis boobu bi nga xamante ni ni bisu far bàkkaar la yan matuwaay lañuy jël ba tax nu xam barab biñ koy defee ban wàccuwaay waay am Cheikh Ibra daa waxoon ni Touba dafa jege péey bi te fu ñuy to fu ñuy tinoo de su fa tooñ fu ñuy tinoo dee su fa tooñ te Touba dafa jege pay bi nun nag danoo jàpp ne xëy na dëkk bi moo yeneen dëkk yam suuf si mook yeneen suuf si suuf yépp yam lu nu neex la ñuy sol lu nu neex la ñuy wax lu nu neex la ñuy def daanaka xàmmewuñ ko ak faneen toujours damay wax ni boo demoon caaree gaar gaare fa camion boo leen indee fii daanaka doo leen xàmmee ak suñu nit dëkk bi waa dëkk bii fi mu doon boo ci doon camion dem ba caaro yi nga wàcce leen fa doo leen xàmmeeg waa caaro yi ci ak col ci aw waxin ci ay démarche sëñ Moussa moom mi woote woon nag mag ñi àndoon ak moom doon jëfit lañ doon jëfanteel teg moom lépp gannaawam nettali nañ ko kon amut lu ci ump loo xamante ni dañ koo xamul luñ ci def ci suñ bakkan lañ ko teg bi muy wootee daa wax ni dama bëgg daje bii ñuy daje fàttali nu sunu daje ëllëg yomal xiyam ci kanam sunu borom nu fàttaliku ni bis pénc dana am ni nuy daje dana daje ñun ñëpp ci kanamu sunu borom wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati farda sunu borom dana nu groupe bi ñun ñëpp ci kanamam kenn ku nekk ci ñun yàlla dana wéet ak yow ba nga jàpp ni yow képp la bind cib jàmm li nga xam ne yow képp yaa ko xam sa bopp kenn xamu ko di ko nëbb bu ëllëgee dañ ko yulli ci digg pénc ma moo tax lu waaye di def na doon lu leer lu mu xam te mu sukkandiku fu dëgër moo tax mu ni bis bi dama bëgg mu fàttali leen sunu daje ëllëg yomal xiyam mu ni bi itam daa bëgguñu ci fàttaliku bis bi Sëriñ Tuubaa laxase dellu ci yërmaande suñu borom yooyu mooy principe bi tax mu woote mu woote ko nag ci njàngum alxuraan njàngum arxuraan mooy lépp lu way man ci jàng alxuraan te sellal ko sëyiñ baa ngi la koy sant santaane boobee mu santaane woon mooy wéy ba léegi fàttali rekk lañ ciy def du santaane bu bees bu ñuy santaanewaat fàttali dong lañ ciy def jàng xasida xasida yi nga xamante ni sëñ bee ko bind di ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne lu mu am ci la ko ci la ko jëlee mooy kéemaan gi gën a rëy ci moom sëñ bi julli géej géej boole ko gayndeeg dem ca tukki baag yooyu yëpp dara rëyu ci moom dara rëyutu ci moom li rëy ci moom mooy li mu waxal boppam karaamati xattu yaddi sama kiimaan xar baaxam mooy mbindum ndijooram mii ni mu bare ak ni mu amoo solo ak mbind mii mu wax ni lu dul alxuraan ak hadis moo gënal suñu borom mbind mee ko gënal suñu borom ci ñu dul ñaar yooyu ñaar yooyu rek ñoo ko féete kaw ak bernde moo tax ba mu koy tàmbali sëñ Modou Daawut ñaar fukki nit ak juróom-ñett loolu itam ab lim la boo xamante ne ni sëñ Tuubaa moo xam li ko ci suñu borom dëxëñal ñaar fukk ak juróom-ñett moom sekk reb sëñ Tuubaa boo xamante ni moo xam li ko ci suñu borom dëxëñal tuubaa gi boo koy lim araf yi ñaar fukki araf la ak juróom-ñett wax nañ léegi ci mbiram mu mujj la ko teewee ñaar fukki ak juróom-ñett bi muy laaj jumaa ji te wax ni képp ku ko joxe mooy sa njot ci sawara ñaar fukki ak juróom-ñett ca la wut ñeent ñu mokkal arxuraan ñoo xam ci biir barab bi lañ toog kenn ku ne toog cib koñ jàng kaamilum arxuraan ba xat mu ko mu wutaat fukk ak ñaar ñoo xam ci mihrab bi lañ nekk fi imam bi taxaw kenn ku nekk ubbi ab kaamil tàmbali ko ba xat xatma ko wutaat fukk ak ñaar yoo xam ci biir jumaa ji la leen tasaare kenn ku ci nekk jàng ab kaamil ba xat xatma ko muy ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett koñu jumaa ji ñeenti koñ la koñ bu ci nekk kuy jàng jës bu kuy jàng muwaahibu kuy jàng muqaddimaat kuy jàng miimiya yooyu itam ay xasida la yoo xamante ne ni sëñ bi ci doon tagg yonent bi sallallahu alayhi li des ci nit ñi ñuy nekk ci istixfaar ñu nekk salaatu ala nabi ñu nekk néewut ni ñaar fukk ñooy ak juróom-ñett képp ñooy jàng alxuraan waaye daa am lu mu ca soxla woon loo xam ne ñoom la ko doon defloo waaye téewut mbooloo ma fa daje ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaa nga ca la nga man ñi mën a wàccee kaamil la ngay wàcce ñi mën a jàng xasida ngay jàng ñi mën a istixfaar ngay jàng ña ca des ñoo nga ca bernde di ko toppatoo ngir jox ko nit ñi boroom xam-xam yi di laa biire ñi xamut mooy fàttali nit ñi seen diine fàttali leen tomb bi sëñ Tuubaa yi leen ak jubloom akum njàmbuleem ñi sun borom defal kàttan wërsëg ñu dimbali néew ji doole yi moom mi nga xamante ne ni booba baatub yoon wi ci loxoom la nekk mu bind ab discours dénkaane fàttali nit ñi li leen fi bàyyi te mooy jaamu yàlla li tax suñu boroom indi nu fi fàttali nu ndigali sëñ Tuubaa te booba li ci gën a rëy mooy jumaa ji mu koy soññe leetar bi mboolem mag ñi dañ ko daan sotti bu ñuy ñibbi moom lañuy delloo ndax boobu communication demewut nii kenn ku ci nekk boo delloo ca dëkk ba ña màggal siwul woon nga dajale leen jàngal leen discours sëñ Moussa boobu yi wax leen ni leen ni lii la wax lii ay fàttali la lii ay ndigal yu bees la lii ay soññe la noonu la ko daan defee mag ñi naka jekk noonu lañ ko daan defee muy bis boo xamante ni ni bisub far bàkkaar la bis la boo xamante ni ni bis bu rëy rëy la nii ko sëñ ba Basiiru doon waxee léegi sëñ taxa mii fi nekkal sëñ Tuubaa moo wax ni wóor na ko ni keroog ba sëñ Tuubaa di waaj ku fi baax diggante asamaan ak suuf yaa ngi waaj la sëñ bi ba mu tàbbi këruk àjjanam te fees na itam ci mbindum sëñ bi nag xasida goog yi muy def tawasul ci xamsatu rijaal yu naan yaa rabbana ilayka asku xaali bil mustafa wa xamsata rijaali a sayxil xaws xaadiril jilaani haaisil ulumi wal irfaani suma abi yasid al bastaami aarifil mubajjalil humami sumata tayfura ibnu isa al aali suma abi xaamidil xazali xaamisuhum maaruful karqi al jihbisil muqaddamil wali boo demee ba ci biir waay waay daan ihdirhumu inda mamatiya xada ihdirhumu la wax teewal leen añ da mamatiya xadaa su sama roog yi tàggali ko sama yaram nañ ko fekke nañ ñëw yonente bi sallallahu alayhi wa la wax ak juróomi góor yàlla yooy yi am na faneen foo xam it dañ wax ni inna allasina sahidu fi lmaaraka mujahidina kullu abin musrikin li nawalun kulluhum yaxbitu ni wa kullun saairun li watani mu ni mbooleem ñi nga xam dañoo dee ci jihaad ci lislaam moo xam xeex bu ñu àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la wala xeex bu ñu xeex gannaawam la seen bakkan des ci nee na ñoo ñëpp ñee nañ ma ci cër bi ma am cër bi ma am ñee nañ ma ci torop te nee ñoom ñëpp danañ ma siyaar si sama dëkk bi danañ ñëw siyaar si ko fii mu tëdd loolu ci bis boobu yi la xewee sakkara ni rabbi inda jundihi suñ borom sant na ma ca kanamu armem ba raamu siyaarati min indihi ñu ngi ñaan suñ tuba seen borom ndigal ngir siyaar si ma raamu siyaarati min indihi nga xam ne ci suñ borom la ñuy jóge ñaan ko ndigal ñëw siyaar si suñ tuba bis bi yu baree baree ci ne baatin nag daa bokkut ak saayir bokkuñu ñi ñu suñ borom dimbale woon ñu doon ay nit ñu way xam te ragal yàlla te suñ borom defar seenub gis-gis bu sori ñoo nu dimbali ñi nga xamante ne ni bëti kese lañ yor di xool nag lu xumb la ñuy xool waaye maa ngi leen di xamante ni dëgg gu gu ñuy raj raj loo amut amut fenn genn dëgg gu ñuy raj raj loo amut foo gis nit ñi defar raj raj loo rek ñaari aw fenn fa waaye ak dëgg moom dee ko booxante mukk jàkka yi dañuy ŋàlli bunt yépp takki rajo di nodd bay bëgg a dee waaye jenn jàkka du fees jenn marché boo dem ci nit ci kaw nit la ndax wutub dërëm te dërëm yi wóor ba xam da nga ko jariñoom déet bu fajaree dañu nodd ba dee ay yàlla sala asalaatu xayru mi na nam waaye li ëpp ci nit ñi boo ko xaajee fukki xaaj juróom-ñeent yaa ngi taral ci kaw lal yi ñëpp gannaaw julli suba la ñuy julli te dara war lu ko lu topp seen bakkal genn dëgg rek koo xam ne dañ koy raj loo amul moo tax bis bi ak jagle la xaas la ju borom deñ gis nga li doju jamaa gën a doju carrière loolu la bis bi gën a yeneen bis yi ci des bari na ñu dund ba dee seen bët mu sa tege ci jamaa dañ koy dégg rek te wenn tojitu jamaa moo gën fanweere camion yi xeeri bu ñuul wala bu xonq bu mën ci doon rek wenn doj tojitu jamaa ko gën bis bi noonu la mel waaye dafa biiree nit ñi nag lu fees lañ xam lu xumb lañ xam lu xoy-xoy lañ xam lu bari raj-raj loolu lañ xam loolee leen jaral lu ne waaye bis bii daal bis la boo xamante ne ni bisu far bàkkaar la te ki ko doon wax juboo naa ci ak saa boroom la wax te wóor na ko ni bisu pénc dana taxaw te ab jaamub yàlla la te wóor na ko yàlla dana àtte te dana fay kon li doon wax xam na ko nun noo war a góorlu bu baax a baax laxasaayuwaat takk suñ digg fas yéene sellal suñ kemtalaayil kàttan te sellal googu ñu fas ko yéene dëkkee ngir barab suuf su tedd si ñuy joggi te boroom baraag bi nekk nii ci suñu wet nga xam ne wóor nañ la boo yuuxoo xaaju ca kaw képp boo ko defee mu dégg sa baat nu war ko rus rus yàlla te wan àdduna gannaaw yeneen lu dul loolu amul njariñ waaye bis bi daal noonu la ko doon taxawee sun boroom defal nañu ci xaas ba ñëpp bàyyee nañu ko waaye nu téye ko loolu suñ mun taxaa doon wax barki dem bu ci jàngum xas jëm ni lu ma ci góobe gar ko bis bi itam lu ci góobee gar ko bari na ñu naan bis bi waree su koo màggal bisum naqar la ak bisum nangam la waaye ba ñuy wax ni bisum naqar la suñ Muusaa dani du ca suñ tubaa du ca suñ tubaa moom suñ tubaa moom du bisum naqar ci moom te it nag li wérti wërit mooy naqari daaw naqaru daaw moom du ma tee bëgg ren man laa wax de naqaru daaw du ma tee bëgg kenn ku ci nekk ba nga ñàkkee sa bàyyit ba bis ba del siwaatee fi waxuma la sax ba bis ba del siwaatee ca bis bu njëkk ba rek ca nga dem daalal an jënd foofu nag mu wóor la bu góor gi déewuloon tey doo añ ba bu fekkee bisu naqar la it bari na ñu doon mbégte ci ñoom mat naa bàyyi xel bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullah ndax sëñ Modou mi nga xam ne moo woote màggal gi dafa am lu ko sëñ Tubaa ndax njañ gi ñu koy wooyee sëñ maanaam ndax njañ mooy boroom kawar gu sëq ñu ne diw dafa ba njañ njañam njañ njañ li dafa dafa sëq mooy kawaram dafa sëq bi muy nekkee yéen njañ lu sëq la yoroon ni ba mel ne sax dafa dafa baramu mel ne dafa yor ay ay ay ay resta ci la ko sëñ bi woo mu ñëw mu watloo ko ko te bi mu ko laajee lu mu ci jublu daf ko wax ne xanaa bëgg a doonu murid rek waaye daf na daf na ko yow demal wattu ba set te ñëw ma tànn la yoon woo jaar yaag sa waa yow dama bëgg nga jaamu yàlla ci sunna sunna bul feeñal baatin bu ko wone bu ci tooñ bu ci fayu loolu la ko suñ borom loolu la ko sëriñ bi tànnaloon mu xamoon sëriñ bi lool nag waaye damay faral di wax ne mag ñi li ñuy bëgg-bëgg sëriñ bi li ñu koy xam-xam-xam jaawuli wuñ ko suñ borom nag déedéet jaawluñ ko suñu borom dañoo jox suñu boroom ak cëram jox sëñ bi cëram waaye jaawaliwuñ ko loolu nettali naa ko ba tàyyi sëñ Ibra Ngoone Njaay mii moo ko nettali dana dama ànd ak sëñ Modou fekk sëñ bu njaareem nee na biñ ñëwee ba ci buntu kër gi sëñ Modou summi ay dàllam nee na ma bokk ma jël dàll yi dajale ko bokk ko nee na dem ba fenn sëñ Modou toog ba néeg bi ne wax ndaw li ne ko bu sëñ bi yëngoo rek saa yëngoo rek mu yëg ne maa fi nee na sëñ Modou bu masaan toog di xaar sëriñ bi du yëngu du raf du waxtaan doy toog rek naan teg rek nee na nes tuuti ndaw li ñëw ne ko ñëw ne sëñ Modou ñëwal wuyu sëriñ bi sëñ bi Ibra Ngoone Njaay nee na sëñ bi bàyyi ma sëñ Modou bàyyi ma fa dem wuyu ji sëriñ bi nee na ma toog fa di ko xaar nee na damaa toog ba càggi ndaw li dawaat ñëw ne ma ñëwul wuy sëñ Modou nee bi ma ñëwee damaa fekk sëñ Modou boofu ci wetu sëñ bi nee na ma ñëw sëñ Modou ne sëriñ bi kii Ibrahima Ngoone la tudd ci fara yi la la ñoo ànd nee na bi ma siyaari sëñ ba noppi nag dellu toogaat man fa ma sëñ Modou bàyyi woon sëñ Modou ne fa ba ca ba mu yàgg nee na mu ñëw romb ma nee na ñu ñëw ba ci buntu kër bi ma teg dàll yi solu ko nee na ma topp ko ba ci digg penc bi mu taxaw ma teg dàll yi mu ne ma Ibrahima Ngoone ma ne ko Mbàkke mu ne ma jëmm ji ci biir kër gi de ku ko xam da ko ragal moo yàlla moom ragal moom nag ku ko xam jëmm ji ci biir kër gi mu sëñ tubaa ku ko xam da ko ragal moo yàlla moom ragal moom mi sëñ tubaa ragal na ku ko xam nooy def kon sëñ Modou ku tegoon sëñ bi barab la waaye dafa tegoon yàlla so barab sëñ Ahmadou wax na ko mooy kenn bu ñu boole woon murit yépp yépp nag bu ci génne kenn teg leen ci balance jël sëñ bi teg ci balance waxuma da du ma wax da di wat ndax wat mooy mu naan nii ni nii waaw maanaam suñu balance dadul jóg waaw waaw déedéet loolu mooy problème waaye nag noone itam noonee ba fi sëñ bi jógee noonu la sëñ Modou Mer ak ñu fi des sëñ Balla bu sa da koo si sëñ Balla bu ko amoon xorom la nitu dëgg la woon it sëñ Modou ne ko Balla lu fere yi wax mu ne ko ah ñu ngi ñu ngi fi di la jaay rek de ñu fi di la jaay de mu ne ko mbaadu dañ may tëkkaleek sëñ bi mu ne ko dañ koo ñeme da koo séen ah loolu koy ñemewuñ ko waaye fa mu jeexalee moom da ko ne waaye bu sëñ bu jàllee nag ñi ci des ak siwuñ la ci wax fi mu ne mënees naa tëkkali sëñ moo de ku ne waaye du bi mu fiy ne nag bi mu fiy ne. moom de su tëkkale kenn ak kenn tubaab bi sax daawoo sëriñ sépp ba ñu ñëw mu ne leen na ngeen ma moytu ci Mouhamadou Moustapha mii maanaam waxuma la ci wàllu baatin ak dara ndax moom doxewu ko woon waaye ci wàllu zahir rek ñu yoroon réew mi muy tubaab yi moom lañ gënoon respecté moom lañ gënoon jox cër ci réew mi te lam doon defit xam na ko ndax sëñ Fallou ko waxal boppam sëñ Fallou moo ne maag saa mag ju baax ja dañ noo jàngal bañ ne ar ñu yar nu bañ ne nër sëñ Modou bu Dieng nee na nett yii ci sëñ Modou mu laa ko ma sa gisee ci laa ko mujj gisee xalif général de Mouride boo xam ne ñam yi lu mu bari bari moo koy séddale ci loxoom duñ ne mukk sëñ bi dafa jàpp ba séddale wu ñooy mooy séddale te dëkk bu mu fanaan ca jàkk ja lay jullee ji waxtu juróom moom sëñ Modou du jullee mukk néegam du jullee ci saalam jàkka ja rek te nee na bu tàkkusaan weesoo téere boo ko andi mu tëralal la ko loolu la boole moom ci xilaafa am dafa jàngoon ba mu ne xam la muy def moo tax am na mag ñi fi nekkoon ñëpp bi mu fii ne bi mu fii ne waxuma la sax ndax sëñ moom bi mu demee ñu bari gëlëm nañ te loolu daloon na bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam Omar dafa jóg ne ku ne yonent bi jóge na fi rek ma tàggal sa bopp sa baat loolu day am waaye nag la tax ñu dellu si aw melokaanama aw melokaanama ànd dox dina ànd naa rek di dox ab seex bu bari mbooloo romb ko sëñ Modou ndaw la ne ki mu àndal ne sëñ bi sëñ Modou le kee de diwa dana torox de sëñ Modou na ko bu ko waxati kee ka ko defar du defar mukk lu yàqu daw toppante moo ne mën naa gis boppam de ndax moo fi nekkal sëñ Touba kon ni mu fexewaat ba lépp daje ci melokaanam la sëñ Modou waxuma baatinam ak dara am te nee na jëfandiku ko ko walla benn yoon kepp ci lu ñu nettali ci lu ñu nettali benn yoon kese waaye li ci lépp ci xelam la doon dox am xelam nag dañuy wax sax ne moo baatini ñenn ñi ñoo tolloo wala mu raw leen ndax ci naalam ak sosam ci la ñëpp teg kenn naa lu fi leneen daanaka kenn naa lu fi leneen ba ci yoon wii rek yoon wii ni daan def mooy ku fi jóge sëñ Tuubaa xam ngeen ne ay mag jóge nañ fi ci jamonoom samput kenn ci waa kër kooka sampul kenn ci waa kër sëñ Modou moo tàmbali ku fi jóge mu woo sa taaw nga ñëw mu teg la fam fa sa baay euh, toogoon dajale mbooloo ma yëpp ñaajo woon ci moom ni leen jëbbu leen ci kii wan ñëpp ne leen man soxlawu may taalibe ñu ànd liggéey sañ Tuubaa rek ku ne leen sëñ Tuubaa joxoon soxlawu ma ko téye ko yaag sa njaboot su ko defutoon rébellion day am kon ciw melokaanam ci xam-xamam ci ndigal lu ko sëñ bi joxe woon ci la ñu tànnale bis bi munu tànnal kon nag nañu xam bis bi te ni ko sëñ du waxe ñu di ko waajal nit na dana am loo xam ne am gi mu ko am day tax du xam lim am lum doon waaye taxawu bis bi ak bokk ci ñi koy dundal du kum neex def ko suñ borom day baaxi nit ngir mu man ko def ndax guddi far bàkkaar suñ borom kum baaxiwul du far sa du du la may xelum ngay jàpp ni lii des ko war a màggal ba si bàkkaar di far du la ko may suñ borom dafa xarañ de dafa xarañ su la narta dimbali day wëlbati sam xel ba yow màggal gi doo jàpp ne sax lu war a def la fekk na moo ko ci jublu kon nun ñu suñ borom dimbali ba màggal gi sunuy wayjur sunuy maam sunuy maamaat ñoo ci àndoon ak sëñ Modou ba nun ñii yàlla baaxee na ñu bokk ci ñu koy taxawal nañ sant yàlla bu baax te waajal ko ba lu nu ci war ñu man koo def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Basiiru ñaan waaye jërëjëf sëriñ Ahmadou ci waxtaan wu solo wi kon daa mel ni mbokk yi niñ ko ubbee woon yaakaar naa ku teewlu woon dégg nga ci. leen ci li li li taxoon ñu woote jataay bi mooy fàttali nit ñi cosaanul jus bi waaye njariñ yi ci nekk waaye agit nan lañ koy defee yaakaar naa kon ku ko teewlu danga ko dégg mu mel nag kon mbokk yi waxtaan yi bokk na ci li ci war a njëkk a déggee mooy kon ndeke mbir mi ku ci bëgg a jariñu ci am xel nga koy teg ndax mel ne Cheikh Amadou Moustapha nekk ak Cheikh Khadim gi mu nekk ak moom ba jariñu ci ndigal yi mu ko joxoon li tax mu mën koo def mooy ci am xel la ko teg kon mbir mi doonut lu ñuy làmbatu waaye ci xel mu leer nañ ñi ci la ko teg ba mën a réaliser lii mu réaliser kon damay jàpp ni dëgg-dëgg mbokk yi màggal gi nag ku ko bëgg a màggal bëgg jot yool bi bëgg koo màggale nii ko borom doon màggale faw nga am xel mu set wi ci nag teg ko ci waaye doo ko teg rek ci maanaam nëmax nëmax ndax kon loolu bu waa day mel ni yow da ngay maanaam da ngaa màggal si ca maggaloo wala màggal gi dala fee fekk ca maggaloo maa nit dana jógee barab ñëw ba ci Touba fanaan ba samaan set ca du màggal nit it dana nekk ci biir dëkk bi màggal gi fekk ko fi ca du màggal melokaan wi ñuy màggale mbokk yi leeral nañ ko ba mu leer nañ ñi ca it nag ku ci bëgg a jot ku ci bëgg a jot faw melokaan woowee rek ngay mën a jaar loolu nag lan moo koy maye mooy xel mi Cheikh Amadou Moustapha amoon ak yeewu tega ba ndigal yi ko sëñ bi joxoon mu fexe ba dara maanaa ba dara esegu ci ndax mbokk yi coow li coow li coow li ak lu man di doon moo ñëw sëñ tubaa ci tubaa rek mooy coow li waaye loo mën di dégg ak lu mën di riir bu sëñ bi néewu ñëwutoon tuubaa France kon mën nga wax ni fondement beeg lépp mooy indi sëñ bi ci tubaa loolu nag ci fan la ko teg ci am xel kon day mel ni sëñ bi ku ci bëgg jariñu mbokk yi faaw ngub bi sam xel xam fan ngay teg sa tànk waaye du ceegi nii dangay ngay doxee doxin wala neexee nii ko sëñ Basiiru ñaan waxee ci sëñ Modou Bousso Dieng sëñ Modou Roqee noonu la ko nettalee nee na Cheikh sa Moustapha programme la amoon nee na julli nee na ñaar fukki isi bi saa bu jullee fata da koy def nee na bu yoor yooree mu lu maanaam guddi gi day jàng di jàng ba fajar bu fajaree ba mu julli ba noppi nee na mu génne ba nga jàpp ni day dallu mu lu piliyaan bi fulk bi ba waxtu julli tisbaar jot mu julli séddale xéewal yi ba tàkkusaan mu tëral ñi mu war a tëral ginnaaw tàkkusaan ba ba timis dogob xasida bi du wàcc kon programme la amoon kon soñ jëndee gi ñu naan murid amul programme ah kay murid bu bëgg a dox ci programme ci ngay dox waaye du seegi ni lu jóg rek aha euh, réeréer la xam naa ko liñ ñu tënkoon xaw naa ki waaye comme dafa mel ni waxtu wi dafa xaw a gàtt ca it dafa mel ni li ëppoon solo mbokk yi wax nañ ko kon damay jàpp ni fi ñuy xam nga ko mel ni Cheikh Modou Moustapha ak lim daj ak lim xam ak li ko sëñ bi dénk ba ma réussir ko moo xam ne bis bii maanaam am na yàqin ni ku ci fanaan boo asamaan setee ni mu ko bëggee nga set wicceeki bàkkaar loolu kon damaa jàpp ni am xel mu set war na koo nangu kon bu bu bu fekkee ne am xel ma ngi cay déng-déng rek xel ma daa setut ndax mbokk kat yaakaar naa barki dem boo njaay am na ko fi xaw a yëngal réew mi ci ni damay def nangam ñëpp gëm ko kooku mooy kan moom mooy kan ñëpp gëm ko ñii di tiit di fa dem di ko seeti far ma nu jox ko ab convocation mu far daw léegi nag kii liggéeyal yàlla ba jot ngërëm lii wax ni ku fanaan ci lii ba nangam ñëpp di ko dégg ngay dengi dengi yow kon an sam xel kon xel dafa newut kon xel ku bëgg a jariñu faaw nga ubbi sam xel di ca dox waaleykum salaam wa